asalaamaaleykum yéen waa Stockholm asalaamaaleykum Sweden Wally Balago Seck mi ngi ñëw ànd ak waram daal di Saturday 24 ci moon bi 24 septembre Wally Balago Seck mi ngi ñëw Saturday bii la incha allah ak waram daal Sweden maa ngi ñëw de maa ngi ñëw de incha